sans ñuy laayam laayam kenn defaru ko ñu fi dajal moo tey ñu defar tali on en a assez ñuy wax wax nañ ñu bind bind nañ ñuy jooy jooy nañ fu ne dugg nañ fa moo tax tey organisé marche bi li ñuy wax mooy doy na doy na doy na Kajoor dootu ko seetaan soxlawuñ protocole soxlawuñ dara lu nit ñu defaral tali bi comme ni ñu defaree tali Sénégal ay citoyen lañ ay citoyen lañ nañ delloo Kajoor dama ni Kajoor ñëpp la ñàkk amul dara kenn faale wuñu kenn toppatoo wuñu moo tax ñu jël entreprise bi ñu yor ñu respecté jox ñu leen entreprise bi liggéey ñun ñu respecté ñu jël entreprise bi taxawaalu depuis deux ans toj na suñu tali yàq googu ma yàqalee entreprise bi defarul dara li ñu bëgg mooy Satacom na dem na dem na dem na dem na dem na dem na dem voilà voilà voilà ok bonjour tout le monde Nous eu réunis aussi pour une seule cause, c'est la réalisation en bonne du forme de cette route qui va de Mekka à Tout le monde en a parlé, les autorités ont écrit, ceux qui, qui, qui passent par la Sakhalat ont, ont, fait des annonces partout, mais jusqu'à présent c'est du dilatoire. L'État ne nous respecte pas, l'État ne conserve pas le caillot, on en a assez, ça suffit, an, on veut que ça nous soit réhabilité comme tant d'autres, comme toutes les routes de pays. Pourquoi nous, nous sommes tous derrière, nous sommes laissés à nous-mêmes, nous sommes te laissé ci sa suuf si doy na ba ñuy sant nag li ngeen def ni di di ko rafetlu parce que yàgg nañ ko bëgg mësuñu ko am kon tey bu ñu defalee li suñu dëkk dañuy kontaan parce que koo ni suba da dem Dakar da ngay saw day dem ku la ni maa ngi ñëw saw fit du daal fii benn jigéen wér amatu si doom yëpp yàqu na bu jógee ngaa yegg si fii soo yegg si moom leneen la ñu wax waaye jigéen ñi ñoo ci gën a sonn te mënuñoo bañ a dem mënuñoo bañ a dikk bu ñu sañoon nañu defaral suñu yoon ndax sonn nan jigéen ñi sonn nan suñu borom kër yi ñëw sonn nañ te yàlla tax président ñoo lay ñaan ngir yàlla nga defaral ñu suñu yoon bi kii ngeen def suñu yoon bi liggéeyu tey liggéeyu suba ñaari at nga laali ko tali bu oto dee dem oto di ñëw dëgër ki dem la ñaa ñaata jigéen a dee fi ñaari jigéen ñoo fi dee ak góor loolu neexul te tey neexul suba sonn nañ nag bu ñu soñoon ngeen dimbali ñu fu ñu dem xew dañuy sol suñu yére robb fanaanu bu ñu demee ba yegg kër gu ñu njëkk ga dañuy wax may ñu ñu dugg summeeku xëppondo sangu raxas suñu bopp soo ko mën a nuru ni dana dem ca xew ba nga xam nga loolu neexul mënatuñu sol yére bu weex mënatuñu sol dara lu baax kuy dem fi da nga naan fu mu jëm day sàmmi wala day day taxani foofu biir kat taxaniwuñu sànniwuñu tali bi moo ñu sonal maa tali bi sonal nañu sonn nañu ku ñu dimbali ñu jël sonn nañu yéen jigéen ñëpp maa leen woo président dimbali ñu suñu tali bi jëlee si jox indi ñu si keneen moom la ñu soxla sonn nañu sonn nañu suñu maire sonn